bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahumma callimna maa yanfacuna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 lañu fa dugal mooy anam bi nga xamante ne yàllaa ñu ko baaxe ngir yenentu bi jàngal ñu ko sallallahu alayhi wa suñu dundin bi gën a mën a ñoŋ mu war a war mën tegu ci yoon xam ngeen ne ñu leen doon waxtaanal keroog ay buntu yoo xamante ne mooy buntu sàkkukaayu yiw fii ci àddina waaye incha allahu subhaanahu wa tey fas yéene nañu ànd ak yéen ci ñaari bunt lu mel ni ñu li lañu yàlla dégtal joxoñal ko ci alquran yonent bi jàngale ko sallallahu alayhi wa naka la dund jullit bi wara mën a ñoŋee ci kaw suuf si mu bañ a jéggaani lenn fenn waaye mu tënk boppam ci la ko alquran jàngal waaye yonent bi daal di ko ko leeralal sallallahu alayhi wa mu di ay baat yoo xamante ne saa yum ko waxee xamal ne bindal nañ ko yiw waaye saa yum ko yoo xamal ne a ah, kooku de nekk na ko perte koo xamante ne leneen lu mu war a mën a sàkkoo ci li nga xamante ne mooy la ko yonent bi tegtal du ko mën a amee feneen du ko mën a amee ci leneen lu dut la nga xamante ne mooy fa ko bi joxoñal sallallahu alayhi wasalam sallam ba tax na ñu nit Rewmi FM 97.5 ñu andil leen ay melokaan la yonent bi tegtal sallallahu alayhi wa sallam ni pencum jullit bi de bu ñu buggee mu doon penc bu ñoŋ bu ñu buggee mu doon penc bu jekk nañu sàlloo la leen yonent bi tegtal te mu bàyyi ko fi ndax loolu la wax taraktum ma in tamassaktum bihima lan tadillu baadi kitaaballahi wa sunnati moo ne yonent bi nee na taraktu fiikum amrayn taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu baadi kitaaballahi wa sunnati lii lañ yonent bi jàngal sallallahu alayhi wa sallam nee ñëw bàyyee naa leen ñaari mbir yi nga xamante ne ñaari sérite yi nga xamante ne fekk yéen a ngi koy jëfandikoo du ngeen musa sànku du ngeen musa réer waaw mooy téere yàlla bi di alquraanul karim mooy benn bi beneen bi mooy sunnam ba mu leeral moo mooy lamu fi bàyyi kom jàngale sallallahu alayhi wa loolu moo tax yow mi dem aji màkka boo demee ci rawdatul muqaddasa ci buqaatul sharifa boobu bërëb bu set bërëb bu sell boobu mu tëdd nga naan ko assalaatu wassalaamu aleyka ya rasulullah qad ballagta risalata wa addalta al amaana wa al umma wajahatta fi llahi xaqa jihaadihi xata al yakin sadaqa allahu al azim sallallahu alayhi wa sallam ne ko yan na la dottil yiw ya nekk fa moom yàlla yan na la yàlla dottil xéewal ya nekk fa moom yàlla maa ngi seede ne ca dëgg dëgg dëgg dëgg aa ah, message bala yàlla jox de jottali nga ko kat addaltal amaanata kat balaxata risaala yonent bala yàlla yónni jottali nga ko kóolute bala yàlla confié matale nga ko laxe nga biir xeet bi lépp lu leen di njëriñ leeralal nga leen ko bem leer nañ waaye lépp lu leen di lor tamit moytuloo nga leen ko ba ko ñu ko ràññee ñu xam ko laxasaayu nga xuus nga si tooru xare ya ba keroog yàlla jëli la ci kaw suuf si sallallahu alayhi wa sallam boobu moo ñu ne si xadiisu abi hurayrata radiallahu an maa bëgg a partager la nga xamante ne bu ngeen ko defee di ngeen soppante te bu ngeen soppante da ngeen dugg arjan moo ne yonent bi nee na si xadisu abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal alaa adullukum laa tadxuluuna aljannata xatta tu'minu walan tu'minu xatta taxaabu awala adullukum ala cheyin ida faaltumuuhu tahaababtum afshu salaama baynakum rawahu muslim mbokk yi yan na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot hadis bi saxaabi bi ñu naan abi hurayrata radiallahu anhu moo ko solo nee na yonent bi sallallahu wa ñu baaxee nañu du ngeen musa dugg arjana mukk da ngeen doon ñu gëm yàlla laa tadxuluuna aljannata du ngeen dugg arjana mukk hatta tu'minu ba keroog ngeen doon ñu gëm yàlla waaw du ngeen dugg arjana fekk gëmu leen yàlla gëm yàlla boobu tamit wala tu'minu du ngeen doon ñu gëm yàlla hatta tahaabu lu dul da ngeen soppante gis nga yenentu bi càllare bay tax doomu aadama bi am barge ticket ba koy war a mën a permettre mu dugg arjana ay critère la waaw da doon ku gëm yàlla gëm yàlla bi tamit buñ ko peesee duñu gis ne am na poids lulut waaw danga sopp sa moroomu jullit moo tax mu ne laata du laa na aljanna du ngeen musa dugg arjana mukk hatta tu'minu ba te keroog da ngeen doon ñu gëm yàlla fekk gëmu leen yàlla du ngeen dugg arjan wala tu'minu wala tu'minu du ngeen mus a gëm yàlla mukk seen gëm yàlla bi tamit du am valeur bu am dayo hatta tahaabu ba te keroog da ngeen doon ñu soppante waaw bu loolu day diis nag ma tegtal leen loo xamante ne bu ngeen ko defee di ngeen soppante allahu akbar yonent bi moo bëgg jullit ñi bil mu'minina raufur rahim lii moo koy wone allahu akbar xoolal coono bu muy daj ngir doomu aadama ngir jullit bi dugg arjana mu ne awala adullukum moo ne du ngeen ñëw ma tegtal leen ala shay'in ci la nga xamante ne ida faaltumuuhu bu ngeen ko sàlloo bu ngeen ko jëfee ngeen nekkee ko ngeen installé ko ci seen système di vie te xaababtum tum ngeen soppante ah de yonentu bi de bu dee ndi woon moo ñu jàngal ana wan yoon la ñuy jaar ba soppante ñun neen ak nañuy xamee nañuy soppante kenn ku nekk day tëgg kenn ku nekk day tëgg foromaawu boppam ne lii laa war a jaar nii laa war a mel pour ma sopp nit ki kuku tamit ne nii la war a def nii la war a jaar pour ma sopp kii kii tamit nee na man nii la kenn ku nekk di tëgg di créer sa formawu bopp ni ngay soppee sa moroom kon coow lay bëri rek waaye xoolal yonent bi sallallahu alayhi mu jël ñépp seen idée mu résumé ko wàccee ko fu nooy waaw mu laal fu sedd mu ne awala adullukum moo ne du ngeen ñëw ma tegtal leen ma joxoñal leen ala shay'in ci la nga xamante ne fa faaltumuhu bu ngeen ko dëkkee ngeen di ko jëfee te haababtum di ngeen soppante mel nii ñëpp a babbeeku dem si yonent bi ñu ne ko aha kañ bëgg nañ ko de waaye yonent bi wax ñu ko loolu yelan tegtal bi na gaaw waay tegtal ñu ndax ñu war a mën a nekkee loole ngir ñu mën a soppante suñ gëm yàlla digër ëllëg yàlla yërëm ñu dugal ñu arjan yonent bi ne afsu salaama baynakum na ngeen jàmmalante borom kër gi na jàmmal soxnaam na soxna si jàmmal borom kër gi ka jiite réew mi na jàmmal ña mu jiite ñu ñu jiite nañu jàmmal ña leen jiite na surga bi jàmmal patron bi waaye na patron bi jàmmal surga bi mbindaan bi na jàmmal boroom kër gi na boroom kër gi jàmmal mbindaan bi nañu jàmmalante nañu yéene wante jàmm nit ki wax waxam wala mu jëf jëfam ba pare nga dem toog télé di ko commentaire doo fa génnee lu fa baax doo fa wax lu fa baax doo fa wax lu mu fa wax ci lu baax wala doo fa wone lu mu fa jëf ci lu baax yow sans contre lu yu baax yi rek ngay teg waaw fa mu juumee ci kàddu moom ngay teg moom ngay répété la mu bëggut ñu gis ko la kamera bi làq yow moom ngay dem làqati ñëw teg ko nga ne lii tamit am na ci mais yow bëggoo jàmmal sa bopp bëggoo jàmmal nit ñi la ñëpp dégg kàddu ju baax bu ñuy commentaire nañu commentaire ci loole waaye bëgg a wax ne man maanaam léegi nit ñi nekkuñu di xëccoo ci lu baax contraire lu baax lañuy ñuy xëccoo di ko wax dina xam ne maa ko gën a nii dina xam ne yaa ko gën a lan na xam ne yaa ko gën a wax jàmm nañu jël loolu inculquer ko promouvoir loolee ñun dañoo opter di wax jàmm bu ñuy dem ba di wax leneen lu dul jàmm am na format yañ koy waxee am na format yu muy nekkee mais duñu lu ñuy teg ci pénc bi ñëpp di ko gis gor dafa war a jombale boppam loolu nit ki wax waxam nga jël wax ji wëlbati ko juutal ko waxee ko leneen na nga ragal yàlla ci sa làmmiñ na nga ragal yàlla ci say kàddu maa yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid la yàlla wax amul benn baat buy jib ci gémmiñu doomu aadama lu dul ñaari malaka ñuy naan raqib ak atit dinañ ko programme bindi ko moo tax yonent bi ne awala adullukum ba xam du ngeen ñëw ma tegtal leen ala shay'in ci mbir boo nga xamante ne ida faaltumuuhu bu ngeen ko jëfee te xababtum di ngeen soppante mel nii ñëpp wax yonent bi ne ah kañ bëgg nañ ko de nga wax ñu ko looloy lan yonent bi nekkul di wax ne dem leen béy bu ngeen paree ngeen séddale ko di ngeen soppante déedéet waxut lii de waxut ne dem leen liggéey bay bëgg a bu ngeen paree li ngeen am ci liggéey bi ngeen séddale ko di ngeen soppante waxut lii ba léegi de waxu fi dara lu yëkkati lu diis waxu fi dara ngay liggéey bay xiixat waxu fi dara ngay am jafeñ-jafeñ ci coono boo xamante ne doo xam foo koy waxee daf ne afsu salaama baynakum rawaxu muslim na ngeen jàmmalante seen biir na nga jàmmal nit ñi ci say làmmiñ na nga jàmmal nit ñi ci say loxo na nga jàmmal nit ñi ci say bindukaay na nga jàmmal nit ñi ci say jëmm nanga jàmmal nit ñi ci say njaboot na nga say njaboot ñu bañ a lor nit ñi nanga jàmmal nit ñi ci bàyyi ma bala yàlla dénk nga di ko toppatoo mala bi nekk ci sa responsabilité na nga jàmmal nit ñi ci mala boobee na nga jàmmal nit ñi nit ñi jàmmal la gis nga ku may nit ñi aafiya nit ñi nañ la may aafiya waaye ku fi nekk di bundu xatal nit ñi ah ha baax na ah bu ñu fayoo tamit nga xamante ne looloo den def loolu nga loon doon def moom lañ la fay rek su ko defee bul bul yedde kenn xoolal fi nga tolloo nit ñi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ahabu naasi àlallah anfaahum binnaas waaw ki yàlla gën a sopp si nit ñi mooy ki amal nit ñi njariñ yow amalal loo nit ñi njëriñ jàmmaloo loo nit ñi a ah, bu yeboo nga xoolaat sa sa cofeel sa digganteeg sa borom yàlla yonent bi nee na xabu naasi illa allah anfaahum linnaas nit ki gën a am cofeel fa yàlla mooy ko amal nit ñi njëriñ est-ce que amal nga nit ñi njariñ ci sa xam-xam ci sa am-am ci sa doole est-ce que tout court jàmmal nga nit ñi bu dee waaw xamal ne sa cofeel fa yàlla yëkkati ko na bu dee déet na nga sensé doxalin moo tax yonent bi ne laa tadxuluuna al jannata du ngeen dugg arjana xataa tu'minu bete keroog da ngeen doon ñu gëm yàlla wala tuminu hatta tahaabu du ngeen doon ñu gëm yàlla fekk soppantewu leen moo ne du ngeen ñëw ma tegtal leen awala adullukum ala cheyin ida faaltumuhu tahababtum moo ne doo ngeen ñëw ma tegtal leen loo xamante ne bu ngeen ko sàlloo ngeen jëfe ko di ngeen soppante mel ni ñëpp ne ahakkañ yonent bi ne afshu salaama baynakum afshu salaama baynakum na ngeen jàmmalante na ngeen jàmmoo seen biir yéen neen na ngeen jàmmalante julit day jàmmal moromu jullitam way gom yàlla day jàmmal moromu way gom yàlla jullit day jàmmal xattaa ku du jullit danga koy jàmmal su ko defee nga dund ci jàmm nit ñi dund ak yow ci jàmm mbokk yi bokk na la tax yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla yónni ko ci xeet bi mooy mu nekkal leen yërmande ci xadiisu abdullahi bun mas'ud radiallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal assalaamu ismun min asmaa'illah wada'ahu llahu fi l ard fa afshuuhu baynakum xadiisu saxiix axrajahu albani mbokk yi ci hadisu abdullahi ibnu mas'ud radiallahu anhu sahaabi bi ko yàlla gërëm nee na bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne assalaamu jàmm min asmaillah tur la ba ci turu yàlla yi assalaam ko wàccee ci kaw suuf si moo fa afshuuhu baynakum na wesaare seen diggante na ngeen jàmmalante yonent bi sallallahu alayhi mbokk yi daf ne assalaamu jàmm assalaam jàmm assalaam baat bu ñu naan jàmm te mooy assalaam ci arab assalaam jàmm ismun dadi tuur min asmaillahi ci turu yàlla yi la bokk waaw jàmm dadi tur ba bokk ci turu yàlla yi yonent bi nee nañu wadaahu llahu fil ar yàllaa ñu ko fi bàyyil yàllaa ñu ko fi tegandil yàllaa ñu ko yónnee ci kaw suuf si kon nag jàmm jooju bokk ci turu yàlla te yàlla jox ñu ko comme cadeau mu bàyyil ko ci kaw suuf si yonent bi ne ñu fa afshuuhu baynakum na ngeen ko wesaare seen diggante bu fekkente ne yàlla fi jàmm ci kaw suuf si mu bàyyi fi leneen lu wuuteeg jàmm contraire jàmm te yonent wi nar a wax ne na ngeen ko wesaare seen diggante coow lay bëri rek waaw coow lay bari rek dund bi moom xaw ma kañ lay sotti mais lay gën a bari mooy coow waaw ndegem yàlla daf ñu ne jàmm dafa bokk ci sama tuur yi di asalaam yonent bi ne ñu yàllaa leen ko jox comme cadeau kon nangeen jàmmoo ah loolu matalewul wujj yaa ngir lorante wujj yi mu lenn ci wujj yi duñu jàmmalante lenn ci boroom kër yi duñu jàmmal seen soxna yi lenn ci soxna yi duñu jàmmal seen boroom kër yi lenn ci parents yi duñu jàmmal seeni doom lenn ci doom yi duñu jàmmal seeni wuyjur te moone ne bi nee na fa afshuuhu baynakum na nangeen ko wesaare na ngeen jàmmoo waaw léegi bu ñu demee ba nit ñi mënuñoo jàmm sante mënuñoo jàmmoo seen diggante bu dee yàlla daa wàccee décret mu jël fi jàmm war a wàccee contraire jàmm kañ lañuy noppi kon ndegem jàmm la yàlla wàcce mu doon cadeau ba nga xamante ne daf ñu ko may bu dee sañ nañ kaa wax mu doon cadeau bi nga xamante ne daf ñu kaa may mu doon free gift mu doon may bi nga xamante ne jënduñu ko jaayuñu ko yonenti bam ko jox ne ko nanka wax sama jaami yonenti boobu newoonu neñu na ngeen jàmmoo gis nga ko jàmmoo ak nit ñi da fiix dangay am xel bu dal waaw lala wala lor bu ko nit ñi xamee sax ñuy topp dem jaar sa digganteeg loolee waaye gis nga boo jàmmalut nit ñi a ah, dalay lor de bu ko nit ñi xamee de dañ lay bàyyeeg loolee ñu xool ba xam nooy ci loroo ak loraange bi nu muy tollu ci xeetu mettit su ko defee lu la ko yóbbee mooy yow jàmmaluloo nit ñi léegi nit ñi tamit waaw dinañ la dinañ la xañ jaam lu ñu xam ci safaanu lu baax luy digmal ci sa njaboot wala muy mal ci sa jëmm ji kenn ku nekk day maye pataaral noppi ndax loolu bu la dalee gàllankoor gi bu la dalee nga mën leen jàmmal ci loraange bi nga leen di lor kon loolu day doon loo xamante ni nit ñi ñoom fa la ñu war a jaar yow ngir nga jàmmal leen kenn du la alerte ci leen kenn du la yëgal ne lu ñaaw li mu ngi ñëw su ko defee moytul kenn du la alerte ci leen kenn du la prévenir ci dara waa ñoom daal ndegeem loolu mooy seen dernière chance ngir bu la dalee nga gaare nga noppi nga jàmmal leen kon dañuy maye pataar fukki nit bu ñu xamee lay ñëw bu ñëwee du dalee sa kaw du neex dañuy maye pataar ah duñ la ko wax signe bi duñ la ko won xabaar bi duñ la ko yeggee ndax ñoom looluy mennum solution boo xamante ne boo fa jaareek ñoom nga may leen jàmm kon ñàkk may société bi jàmm catastrophe la ñàkk may nit ñi jàmm musiba la waaye may leen jàmm nag dangay jàmmal sa bopp jàmmal nit ñi ñooñu ñooy ñoo xamante ne bu ñu déggee gàllankoor bay ñëw ci yow jar na kenn xaaji guddi mu ñëw fëgg sa bunt néeg wax la la xew lay ñëw lay dégmal si ndax nga mu ndax nga mun a mucc kooku lu tax muy def loolu ndax danga jàmmal nit ñi te nit ñi ñu ngi jëlee ci sa jàmm jooju yiw boo xamante ne ah xëy na yow boo ko xamut waaye nag njëriñ bi nga amal askan ba tax na loolu dina tax kenn ku nekk ci askan ba ngay dund bu ñu déggee gàllankoor bay ñëw ci jëmm ji nga xamante ni day jàmmal nit ñi dinañu daw ñëw fekk ko wax ko ne ko ah na nga bàyyi xel waaw diw sangam mu ci say tànk ah na nga bàyyi xel bés sangam lii sangam dina xew te bëgguma bu ñëwee mu bett parce que lu tax ñooñu di wax loolu kooku noonu parce que da leen may jàmm da jàmmal moo tax yonent bi ne assalaamu jàmm ismun da di tur wi nga xamante ne min asmaillah daa bokk ci turu yàlla yi wadaahu llahu fi ard yàllaa leen ko wàcceel ci kaw suuf si kon fa afshuuhu baynakum na ngeen jàmmoo seen diggante na ngeen jàmmoo seen biir mbokk yi jàmmoo ci doomu aadama yi amul lenn lu ko gën bokk na ci maam borom tuuba rahimahullah ñu ne dañ ko ne ana lu gën a gën jàmm mu ne gisu ko fii ci àddina ak fee ñuy jëm keroog bés penc nee gisut la gën jàmm fii ci àddina waaye gisut la gën jàmm ëllëg bés penc waaw rahimahullahu taala rahmatan kon ñoom dañoo gis ne la yàlla wax yonentu bi ne jàmm amul dara luñ ko war a wéccee ko ñu déggee ci ne ki ñu wax jàmm ki ñu décrire jàmm ki ñu wax définition jàmm ci turam dëgg dëgg dëgg dëgg te mu bokk ci turu yàlla muy assalaam di jàmm ndegem ñoom foofu la ñu déggee foofu la ñu gisee foofu la ñuy moo tax sëñ bi ne gisut lu ko gën fii ci àddina ak fee ñu jëm alaaxira léegi nag nga gis ay nit yuy toog di wax di sànni ah duñu ko commentaire duñ ko décortiquer duñ ci indi benn taaliqaat ñoom dañuy wax rek te ëpp naa wax waaw ah, kilifa bu toll nii bu ñu àddoo ci mbind walla ñu àddu ba ñu si jot ci nettali la ci war ñu nit ñu andi si cadre ba nga xamante ne da koy gën a da koy gën a neex a xool walla neex a dégg comme taalube bi dafa tàmm di laaj sëñ bi ci mbiru diineem moo tax keroog buñ ko laajee ñu ne ko sëñ bi ana lan moo gën jàmm mu tontu leen tontu bu gàtt te bari maanaa am faayida lool mu jàmm day gisuma lu ko gën fii ci àddina ak alaaxira bi léegi mënees na ñoo tegtaloo ci ñaan bi nga xamante ne alquran andi ko te yàlla ne yonent bi ne jullit bi na ma koy faral di ñaan mooy rabbana atina fi dunia xasanatan wa fil axirati xasanatan yàlla nga ma may yiw fii ci àddina waaye àllaaxira yàlla nga ma may yiw foofu ñuy jëm kon sëñ bi bu ne gisul li gën jàmm fii ci àddina ak fële ci àllaaxira yàlla mooy ki njëkka ne yenentu bi waxal sama jaam yi ne leen nañ ma ñaan jàmm àddina ak jàmm àllaaxira ndax jàmm àddina mooy nga doylu nga maandu nga taraxlaayu tënk sa bopp ci ndigle yi géem sori sa kemtalay kattan ci tere yi ñàkk jàmm nag mooy tënk sa bopp ci tere yi sore lépp luy ndigle yi boole ko foqale boole ko di nax nit ñi boole ko di wor nit ñi boole ko jaay doole nit ñi loolu catastrophe la torox tàngi gënu koo ëpp ci kaw suuf si ci kuy dundee nii kon mu doon loo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na assalaamu jàmm ismun da di tur nga xamante ne min asmaillahi daa bokk ci turu yàlla yi wadaahu llahu fi l ardi ko wàccal ci kaw suuf kon nañ leen ko jëfandikoo ñuy jàmmalante ci dikkin yi ñuy jàmmalante ci micro yi ñuy jàmmalante ci plateau yi ñuy bañ a di wili wante soxla yeeg sekere yeeg lañu nëbb waaw su ko defee loolu mooy ñàkk jàmm ñàkk jàmm nag tey ku xool dëkk yi nga xamante ne ñu ngi tàkk te ngay xam njëriñu jàmm ñu jógee ko béréb yi nga xamante ne tey misil yaa ngi wadd ci béréb yooyee ñooñu ñooy ñi xam njëriñu jàmm waaye yow mi nga xamante ne yàlla baaxe na la déggoo gisoo yëgoo a ah, yow boo amee jàmm de bu ko fooye mbokk yi waxtaan bi jeexul yal na ñu yàlla may dégg ak topp yal na ñu yàlla may lépp lu ñu dégg ci waxtaan wi nar koo jëfe yal na ñu yàlla mottali njuumte yan ci rëccale amin ya rabbal alamin waxtaan bi jeexul dañoo yëg ci fu ñu war a yëkkatee jotaay bi war a joxe béréb bi jébbal béréb bi ñu joxe xibaar ci nasaraan ñaan yàlla suñu boroom an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana